salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin amma baadu mbokk jullit yi suñu borom subhaanahu wa taala moom mooy nattu ay jaamam ci lu ko soob ci ay xeeti nattu yoo xam ne dina leen ko nattoo waaye nattu yooyu muy nattu yu jaam ñi itam da cee am moom subhaanahu wa taala ay doxalin am ci ak xereñ gu ci nekk goo xam ni subhaanahu wa taala daf koo boolewaale ci biir nattu yooyu muy ay jubluwaay yoo xam ne yu màgg la loolu bu fekkente ni jaam bi taxaw na mu bañ a yam ci nattu rek ci teg bëtam ci métit bi nga xam ne moo ca ne ak jafe-jafe ak coono bi nga xam ne moo ca ne waaye mu xool la nga xam ne moo nekk ci ginnaaw natt ba ci lu mu koy delloo ak lu mu koy indil ak lu mu koy jariñ ci dundam moo xam ci wàllu diineem la wala ci wàllu àddunaam la bu fekkee jaam bi taxanoo mu seetlu jëflante bi yàlla di jëflanteeg jaam ñi ci nattu yi muy jël di ko teg ci seen kaw bu demee ba seetlu ca ba gis ca xereñ googu ci yàlla subhanahu wa taala def ak ni mu cay doxalee loolu dina ko yokk mu gën a gëm yàlla gën a wóolu yàlla gën a xam ne li nga xam ne mooy nattu ndakate day jóge ci yàlla waaye dafay delloo ci yàlla waxuma day dellu ci yàlla mais day delloo nit ñi ci yàlla nattu gii ñëw ci yàlla la jóge kon bul yam rek ci étape bu njëkk bi étape bu njëkk bi nga xam ne ñu bari ci nit ñi fa lañ juumee ci li ñuy teg nattu mooy bu ñëwee li ñu soxla mooy jàmbat ne nattu bi mett na foofu ki ñuy jàmbat mooy yàlla yàllaa ñoo ko teg yàllaa ñoo ko teg yàllaa ñu nattu yàllaa ñu nattu waaye nattu bi effet bi mu war a def impact bi mu war a am ci ñoom ci delloo leen ci yàlla delloo seen mbir lépp ci yàlla léeg-léeg deuxième étape boobu la ñu bari dul nangoo franchir ngir dem ci moo tax suñu borom subhanahu wa taala ne suñu borom bu fekkente ni teg na la jafe amul kenn ku ko mën a teggi ku dul moom waaye bu la nammalee yiw itam ngëneelu yàlla amul ku ko mën a delloo yàlla mooy xool ku ko soob ci jaam ñi mu defal la ngëneel te kenn mënu ci dara ndax mooy ki nga xam ne mooy borom njéggal ak yërmande yonent bi alayhi salatu wasallam waxoon abdullah ibn abbas ne ko xamal ne bu mbooleem doomu aadama yépp dajaloo woon ne dañ lay jariñ munuñ laa jariñ ci lu dul loo xam ne fekkoon na yàlla bind ko ci yow ba noppi bu ñu dajaloo woon tamit ne dañ lay lor munuñ laa lor ci lu dul lu yàlla bindoon ne dina la dal xalima bi nga xamante ni bii moom lañu doon bindee dogali jaam ñi teggi nañ ko lu yàgg fañ ko doon bind itam far na fendi na desu ca yokk lenn wala ñu cay soppi lenn loolu nag dafa nekk benn résultat boo xam ni mbir la moo xam ni bu fekkente ni jaam bi jaar na ci ay nattu ak ay jafe-jafe mu génn ci nattu yi fekk ne loolu leer na ci boppam jël na am na ngañaay lu rëyee rëy rëy ak lu mu souffrir souffrir ci nattu li physiquement bu xoolee ci beneen côté ci beneen sens moy gis-gis bobu nga xamni legui nek na lu mel lampe bu tak ci xolam loolu nek na ben njariñ lo xamanteni aduna ak li ci bir munu ko jënd ndax da fay nek ben force bo xamni ak ben énergie bo xamanteni c'est inépuisable ken munu ko jéxal amul fu motax yaronte bi alayhi salam waxon ne ma utiya ahadun ataan khayran wala awsaa min as-sabr amul ku yàlla jox lo xamanteni ni gën naa yaatu gën naa baax muñ muñ bi nga xamanteni bi loolu muy tak tak boobu nga xam ne mooy tàkk ci xolu jambi bi moo koy may force ci mën koo def mën a dékku li nga xam ne mooy ndogalu yàlla yi fekk ne xam na li nga xamante ni dëgg-dëgg ndogal yi muy muñ ëllëg dina ko ko jural loolu la suñu borom subhanahu wa taala di jublu léeg-léeg ci yenn jafe-jafe yoo xam dina ci jaarale ay jaamam ndax dafa bokk ci ay jubluwaayam moo tax bi muy wax ci julit ñi bi ñuy jaamaarloog seen i noonu mu metti lool te nit ki mën a posé wu question lu tax ndax moom am na kàttan ci dimbali leen am na kàttan sax ci fegal leen noon bi ba du ñu jaamaarloog moom waaye dina leen jaarale ci jafe-jafe yooyu li yumaxis allahu alladina amanu wa yamxaqa alkafirin mooy tamxiis mooy yàlla faw mu fóot la yow julit bi fóot sa xol ci yim lay jaarale ci ay épreuve yoo xam ne dafa lay raxas ci lépp loo xamante ni waroon na mën a def sa xol nga koy jël di ko aj ci keneen ku dul yàlla nga xam ne da jaar ci jafe-jafe yooyu dem ba gis ci loo xam ne da ngay xam ne xel ne jafe-jafe booy jànkoonteek moom kenn mënu koo teggi ku dul yàlla nattu yi ngay jànkoonteel kenn mënu koo dindi ku yàlla nga dem ba am certitude ci loolu mu nekk yaqin ci sa xol nga am ci yàlla ci bépp jafe booy dund rek nga am ci kóolute ci yàlla ndax dafa nekk loo xam ne koo dund mu nekk expérience yàlla jaarale la ci loolu waaye tamit wala yu maxis allahu alladina amanu mooy jafe-jafe yi mooy génne ñi nga xam ne dañoo raaxaloo ci biir mbooloo mi te bokkuñu ci ndax bu yëf yi ñeexee rek ñëpp na ci lañu waaye bu jafe-jafe yi ñëwee ñu xam ñi dëggu ak ñi nga xam ne dëgguwuñu kon loolu ay jubluwaay la yoo xam ne suñu borom am na ko ci jafe-jafe yooyu muy jaarale julit ñi bu fekkente ni itam seetlu nañ doxalin boobu suñu borom subhanahu wa taala nettali nañu num mu ci jëflanteeg ay jaamam jaaral leen ci mel ne ku leen doon for defal formation boo xam ne résultat bi fi muy mujj rek mooy làmp boobu tàkk ci seen i xol mooy làmp yaqin boobu tàkk ci seen i xol nga gis bi ñu yàlla subhanahu wa taala nettalee xew-xew bi nga xam ne dox na diggante yonente yàlla yusufa alayhi salaam ak frère ya muy doomu baayam ya doomu baayam yi soxor ak keñaan bu dox seen digganteeg yusufa moo leen puus ñu jël ko ne dañ koy dem sànk ji ndax gis nañ ni baayam daf ko bëgg bëggel goo xam ni bëggeelew leen bëggeew leen bëggel gu toll noonu ñu ne la yusufu wa axuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin léegi fii mbir mi di nekk léeg-léeg mooy seen jugement bi dafa nekk jugement bu erroné ndax xooluñu ci yusufa ak ci seen bopp lu war a tax ñu xam sabab bi tax seen baay bëgg ko mbëggeel gu mu leen bëggul mais ñoom dañ jàpp ne rek erreur bi ak problème bi ci seen baay la nekk ñu daal di koy culpabiliser léegi loolu tamit indi fiiraange gu ñu fiir ci Yuusuf ñu bëgg a régler problème boobu mais ñu ngi dem duggaat ci beneen problème bu ko gën a compliqué mooy léeg-léeg bëgg a régler problème ci problème ñu laxasu ci seeni problème dem jël Yuusuf ni dañ koy sànk léegi bi nga xamante ni jël nañ Yuusufa dem yóbbu ko di ko sànk yàlla daal di sàmm Yuusufa muccal ko ci seen pexe yooyu jëlal ko boppam sàmmal ko boppam waaye moom ci boppam taxul mu musal yusufa ci ay jafe-jafe dafa jëlaat yusufa delloo ko ci ay natt ak ay jafe-jafe ngir yóbbu ko ci benn résultat boo xam ne bu am solo la ndax yusufa bi mu demee ci dëkk ba nekk fa ba léegi nag problème yi nga xam ne moo nekkoon digganteem ak ay frèream yépp jeex yàlla indil ko yeneen problème feneen fu mu ko séentuwul woon mooy ci biir kër ga mu nekk soxna soo xamante ni bi moom moo fa nekkoon war koo yor yàlla def ay natt ci digganteem ak foofu bañu ñu tuumaal ko fa tuuma woo xam ne moo ko jël dugal ko biir kaso mu dugg ci prison bi ba mu fa duggee daje fa ñaari nit ñu laaj ko ci xam-xam lu mu leen tontu lu tax ñu am fu ñu ko teg kenn ki ci ñoom ñaar ñu exécuté ko ki ci des ñu acquitté ko libeere ko dafa wax ki nga xam ne jàppoon nañ dinañ ko libéré boo demee na nga tudd sama mbir ca buur ba fa fàttali ko sama dossier yàlla bëggul loolu ci moom ndax boobu xol baa ngay jëm ci keneen ko dul yàlla yàllaa ko fa dugal yàlla bëgg na ci yuusufa mu bañ a gestu keneen ku dul yàlla bañ a yaakaar ne am na keneen ku ko mën a génn fii mu nekk ku dul yàlla moo tax ba mu ko waxee kooka ko dem fàtte ko moo tax mu ne fa ansaahu sheytaanu dikra rabbihi fa labitha fi sijni bidaa sinin yàlla bàyyi ko fa mu toogaat ci ci ca ca prison ba ay at yoo xamante ne desaat na ko fa ndax kooku mu yóbbante woon fàtte na lañ koy yóbbante loolu yëpp coobare suñu borom la ba yàlla fu mu ko bëgg a jaarale ba formation ba àgg la mu fa war a toog mu toog ko fa yàlla génne ko ni ko sob moom mu génnee ni ko pas ni sob yuusufa mais ni sob yàlla li soob yàlla mooy buur ba mu doon yóbbante ci moom moo gént gént bu ko jaaxal mu laaj ko ñi ko jege ñoom ñëpp ñu lottu ci mën ko koo tekkil mën ko koo firil ka mu yóbbante woon fàttaliku yuusufa ma nga xam ne moo leen doon tekkil seen gént yi sa prison ba mu ne buur bi yabal ma ci kooku yabal ma ci kooku ma dem laaj ko sa gént bi dina ma dina ma ci wax dara buur bi daal di koy yónnil boppam mu dem fekk ji ko ca prison ba laaj ko la nga xamante ni bi moom la buur bi gis mu tontu ko ca wax ko ca xam-xam ba mu delloo ci la ko yàlla subhaanahu wa taala génne ci génne boo xam ne génn génnek yëkkati la génnek teraanga la du génn ak saraxu wala ñaan sa mbokk mbindeef boo xam ne boo lëgee foo ko seen naan ko jërëjëf yaa ma defal nangam ak sàngam kon nga gis ne ñaari génn ni bokkul loolu nag yusufa da cee jële lu am solo moy xamne ndakate yàlla mi ko tegon ci nattu yi amul ci kenen kum meuna laxasu kum meuna wéru kudul mom ngir yàlla génne ko ci légui lolu motax bim démé ba yàlla jox ko nguur yàlla jox ko teranga yëkëti ko bimi wax ak ay wajuram bim gisé teranga biko yàlla defal daf ne yow sama bay hada ta'wil ru'yaya min qabl amna ben gént bu ma mësa waxtaan ak yow ba nga ne ma bu ma ko sama yi frère sama mbokk yi sama doomu baay ndax su ma leen ko netalé dinañ gis ne am na lu ma yàlla di waaj a defal ci ngëneel ñu jëm maa fexeel mooy nëbbatu bi léeg-léeg nit ki di nëbb ay mbiram li naan ku ñu xam fi nga jëm doo a àgg loolu ma waxtaane woon ak yow nag ci gént boobu ma gisoon gis naa ni tey jii yàlla mottali na ko yàlla def na ko te yàlla defal na ma ngëneel gu rëy bi nga xam ne génne na ma génne na ma ci prison bi id axrajani min as-sijn kon yusufa fàttaliku na ne yàlla moo ko génne ci prison bi id axrajani min as na moo ma génne ci prison bi wa jaa bikum min al badu te moo leen jëlee ci àll ba ngeen nekkoon jëlee leen Cham indi leen Égypte ngeen ñëw fii ci dëkk taax yi kon ngëneel gi ma am yépp yàlla moo ko def kon mu fàttaliku ngëneelu yàlla loolu mooy def yaqiin ci xolu jaam bi ba bu jaaree ci jafe-jafe yooyu yàlla fóot ko ci fóot ci xolam mu jële ci benn certitude ak benn yaqiin boo xam ne da koy xamal ne amul kenn ku ko mën a dimbali amul ku ko mën a xettali su nekkee ci ay jafe-jafe ku dul yàlla loolu nag nekk na ngañaay lu rëy rëy loo xam ne bu ci nit ki génnee ci ay jafe-jafe deful lu dul yokk waaye wàññeekuwul naka noonu tamit baayam yaqub yaqub bi ko ay doomam ñëwee ne ko boole ñoog yusufa ñu ànd ak moom dem ci àll bi fowi dinañ ko wattu loolu daf ko xaw a tiital indil ko njàqare ndax day ragal ñu yóbbu ko sànk ko muy jéem a ut pexe mu mu def ba aar yusufa fekk ne xamul ne day pexe waaye yàlla moo nekk ci ginnaaw yi pexe mu ne leen damay ragal ngeen yóbbu ko ci àll bi ab till daal di koy lekk ndax mun ngeen ko faa bàyyi nekk ci seen i fo till ñëw jël ko lekk ko loolu mu leen wax noo seulement protégé wul yusufa pexe la waaye loolu sax moo sànk yusufa lam doon jéem ci ay pexe ngir sàmm yusuf moo sànk yusuf ndax ba ñu demee def la ñuy def bi ñu ñëwee dañ ne inna dhahabana nastabiqu wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhi'b lam leen waxoon ne lay ragal loolu moo leen inspiré jox leen xel ba ba ñu defee la ñu def bi ñëwee lay bu mel noonu lañ ko jox kon daanaka daa mel ne moo leen xelal kon mu doon jéem aar yuusufa ak fekk ko ci pexe yi nga xam doomu baayam yi dañ ko koy fexel waaye loolu jariñu ko dara bi nga xamante bi dem na ba gis loolu mu seetlu ko xam na ni kon benn wéeruwaay moo fi am muy yàlla ndakate mbir mi du ay pexe du ay stratégie du xereñ du lenn mais dëgg-dëgg yàlla la li ngay def ay sabab la rek waaye yàlla subhanahu wa taala rek moo mën a xettali ab jaamam bu nekk ci ay jafe-jafe moo tax biñ demee ba génne seen xel ci yusufa ñu dem ba war a ànd ak benyamin mi nga xam ne mooy rakku yusufa pour yóbbu ko égypte moo gën a sori fuuf fiñ doon wax ne ndax dañ doon wax yusuf ci ginnaaw kër gi rek lañ jëm ak moom fowi ji benyamin nag ñi nga nar a jëm ak moom ba égypte jóge cham dem ba égypte ñu ñëw di ko ko laaj fofu amat na njàqare li nga xamne mom la amone ci mbiru yusuf mu ne ndax mën na leen a wóolu ci mom ludul rek ni ma len wolo won ci yusuf moy sama xel dalul mang len koy jox waye lim ci tek moy fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi yu neewu leen damay bañ gen yóbbu ko nangam am di wax lo xamne sax xamna na ni xëy na mën bañ am waye waxe lay la bi yon defuko dafa delo mbir mi ci yàlla ndax jàngee na ci yon bu ñeek bi ne lam waxon ci ay pexe jariñu ko dara loolu tax ci ñaareelu yoon bi mu jël mbiri delloo ko ci yàlla ne fallahu xayrun xifdan wa huwa arhamu rahimin ba ñuy dem ma ngi leen di xelal waaye lam leen di xelal sax da caa def ndànk ndax bañ na la ko daloon ca yusufa tamit ci di jéem a def ay pexe far pexe ya sax jariñu ko muy ragalaat lu mel noonu dalaat ko ci doomam yi mu ne leen yaa baniya laa tadxulu min baabin waaxidin wa duxulu min abwaabin mutafarriqa bu leen duggee benn bunt da ngeen demee ba jub dëkk ba na ngeen tasaaroo ngeen xajjaliko ko dugg ci ay yoon jaare ci ay yoon yu bokkul ngir seen ànd bi ngeen di ànd di nekk groupe bañ a attirer trop attention wu nit ñi ndax am na lu bari lu mu leen di ragalal ci ay pexe yoo xam ne mënees na leen koo pexeel wala ñenn ñi di wax ne bët la doon ragal ci ñoom waaye daf ne wa ma ughni ankum min allahi min shay in al hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal mutawakkilun daf cee teg ne amalu le amaluma leen benn mën-mën ci mbiru yàlla li ma leen di wax xalaat la bu ma xalaat jàpp ne lu baax la ci yéen waaye sax ma ci loolu ci yàlla laa sukkandiku moo tax mu ne inil xukmu illa lillah yàlla mooy dogal yàlla mooy def ci ay jaamam lu ko soob bu yàlla nammee ci jaam dara pexe dindiwu ko kon damay damay sabab lu rek jox leen loo xam ne sabab la bu ma yaakaar ne mën na leen a jariñ waaye wa maa uxni ankum min allahi min shay loolu moo tax mu ne wakkirlu naa ci yàlla te képp kuy wakkirlu ci yàlla nga war a wakkirlu foofu nga gis ne discours bi wute naag bu njëkk ba mu leen di bàyyeeg Yusuf te moo ne ni mu bëggee yusufa sax bëggee ko benyamin waaye gis nga loolu yépp jangala yoo xam ne yàlla da ciy jaarale ay jaamam yoo xam ne da ciy ubbi seen i bëti xol ci ñu dem ba am yaqin boobu nga gisaat tamit yonente bi alayhi salatu wasalam moog julit ñi keroog bi ñu ubbee màkka dégg ne waa taif dajaloo nañ waa hawazin dajaloo nañ ak yenn xabira yenn kër ci kër yi arab yi dajaloo taif ne ñoom ñi ngi paree di xaar julit ñi ñëw ñu jaamaarloog ñoom mu dem fa bi ñuy dem keroog liñ ci ay nit mat fukki junni ak ñaar fukki junni ci ansaar yeeg muhaajiruun ay ñaar ci ñi nga xam ne ñooy wàcc bees yi soog a tuub ñu demee foofu di dem ci yoon wi seen mbooloo mi dafa bari ba kenn naan tey de kenn duñu gañe ndax suñu néewaay fàtte ne mbir mi du mbiru kàttan gu bari doole wala mbiru bari waaye ci mbooloo wala mbiru bari ay ngànnaay ndimbal dëgg dëgg dëgg ci yàlla la jóge moo tax bi mu yebal malaaka yi mu leen di dimbali daf ne wa maa jaalahu allahu illa bushra lakum wa li tatma inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillah malaka yima yabal sax li for for for bu len japp ne ndimbal ak ngañay ci ñom la dépendre ndimbal ak ngañay ci ndimbalu yalla la lay dépendre lolu bako kenn waxe yalla nattu len ñu dem jaamar lo ba tambali wacc be si nga xamni ni ngëm yàlla gi desena deugar ci ñom formation bi desna dal di tambale delu ginnaw lolu déstabiliser julit ñi seeni rang dal di jaxaso ñu tambale di len neewul doole mu dem ba daanaka yonente bi alayhi salaam moo fa des ak mbooloo mu néew ñu wër ko muy jéem a del delloo siwaat li nga xamante ni mooy turu bi di leen delloo siwaat ba ñu del siwaat ci li li yàlla wax ne wanzalallahu sakinatahu ala ala rasulihi wa ala almuminin mooy ne yàlla subhanahu wa taala delloowaat ci seeni xol benn mbir mooy mbir bi ñuy waxtaanee mooy kóolute gi jàmbi di am ci yàlla nga xam ne mooy mën a tax mooy mën a tax mu taxaw ci kanamu jafe-jafe yi loolu bi ko yàlla wàcce waatee delloo ko ci xolu yonent bi def ko ci xolu julit ñi ci lañ taxawaatee dëgëral seeni tànk jaamaarloog seeni noonu ba yàlla defal leen gañaay mais li ñuy jàngee foofu rek mooy jaamaaroo nag seeni noonu yor ci kàttan ak ci ay nit loo xam ne mosuñoo yor lu toll noonu loolu yéem ay nit bañ yaakaar ni seen ngañaay ci loolu la dépendre yàlla wan leen ne dépendreul ci loolu ci sama ndimban la dépendre loolu kon bu fekkente ni seetlu nañ ko itam liñ ciy jëlee li nga xamante ni mooy ay jafe-jafe bu fekkee jullit bi jaar na ci lu mu metti metti metti bu ci génnee ak gis-gis boobu ci xolam ci ne amul kenn ku muy jël xolam bi di ko ci aj bu nekkee ci ay jafe-jafe di séntu ci moom mu xettali ko dimbali ko ku dul yàlla kon ñàkkatul dara ci jafe-jafe yi ak lu mu mën a tar tar tar ba nga xamante ni bii bu jógee ci loolu amul ku muy xalaat di ko sant di ko kañ di ko bàkk di di ko delloo njukkal ku dul yàlla foofu nag la différence di amee diggante jullit bi nga xam ni pas-pas boobu leer na ci moom dëgër ci xolam ba wéetal yàlla nekk ci moom kooku mooy koo xam ni bu ko ay jafe-jafe dikkalee mu génn ca ma ngay sant yàlla di delloo yàlla njukkal di gis ne mbir mi lépp yàlla la mu wuuteeg ki nga xamante ni moom yàlla nettali nañu ci alquran ne jaam bu gëmul la jaam bu sellalul boroomam la wéetalul boroomam la moom bu nekkee ci ay jafe-jafe ma ngay ñaan yàlla naan yàlla yàlla yàlla ndax léeg-léeg yàlla bàyyi jàmm ci jafe-jafe yi ba bu ñu gestoo duñu gis kenn ñu xam ne kon fi mu ne nii kenn nekku fi ku leen mën a xettali ku dul yàlla waaye nag bu leen yàlla xettalee rek ñu fàtte ku ne tàmbali di bàkk diw naan jërëjëfe diw jërëjëfe diw jërëjëfe diw loolu nag du melokaanu ab jullit bu ne gëm na yàlla te day wéetal yàlla subhanahu wa taala melokaanu ab bokkaalekatu borom bi subhanahu wa taala la moo tax kon jullit buy génn ci ay jafe-jafe bokk na ci lim ciy génnaale mooy am yaqin ci ne ci ndimbalu yàlla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 وعملا متقبلا اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم ارفع الذل والبأس عن المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وانصرهم على عدوهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله